je suis le mandataire du candidat ministre d'État, M. Abipsi. Donc, euh, nous venons de sortir euh, de la salle de vérification du contrôle des parrainages. Donc, euh, tout s'est très bien passé. Donc, euh, notre parrainage a été validé par la commission de vérification et de contrôle des parrainages. Voilà, alors évidemment, je pense comme vous le savez tous, Et notre candidat a été parrainé par les députés du PASTEF. Ça, tout le monde le sait. Et c'est l'occasion vraiment de rendre un grand hommage à M. Ousmane Sonko et à toute la direction du PASTEF pour la confiance qu'ils ont portée à notre candidat M. Abipsi. Et comme vous le savez, nous, nous l'accompagnons. Et comme l'avait dit le président Abipsi, évidemment, nous prions de tout cœur pour que sa candidature soit validée. Parce que juridiquement, rien ne s'y oppose. Donc c'est une prière du fond du cœur que nous faisons. Parce que notre candidat, c'est M. Ousmane Sonko. Je pense que si nous sommes à côté de lui, c'est parce que c'est un homme de très grande valeur. Nous, nous l'avons côtoyé, nous le connaissons. Donc nous sommes avec lui. Et évidemment, comme l'avait dit également notre candidat, M. Abibsi, si sa candidature, la candidature de M. Ousmane Sonko est acceptée, il va retirer naturellement sa candidature. Donc vraiment, c'est vraiment ce que nous tenons à dire. Et encore une fois, nous prions, parce que notre souhait le plus profond, c'est que la candidature de M. Ousmane Sonko soit acceptée. Voilà. Salam alaikum. Ibrahim Diakhaté, mandataire, Habib Sy, candidat à l'élection présidentielle. Donc comme vous le savez, M. Habib Sy ay député Pastef ñoo ko parrainé e loolu vraiment dañ ciy profito pour remercier leen d'abord toute la direction du Pastef parce que moom ni mu ko waxee ndeysaan bi ko Ousmane proposé comme candidat ñëpp nangu ñëpp ko nangul donc ñu ngi leen ñu ngi gërëm waa Pastef yëpp particulièrement nag monsieur Ousmane Sonko pour kóolute gi mu jox sunu président ministre d'État Habib Sy waaw ñun nag dañuy ñaan yàlla waaw yàlla dañu ñaan yàlla moom candidature moom mu jàll parce que Ousmane ko mooy suñu candidat waaw ñun xam nañu ko vraiment c'est un homme de très grande valeur morale et intellectuelle et li ñaan yàlla wax dëgg yàlla mooy moom mu jàll parce que buñ ko tënkee ci yoon rek ci droit rek vraiment ci yoon bu ñu doxalee yoon candidature am dafa war a jàll waaw ñun loolu lañuy ñaan yàlla mu jàll parce que il le mérite il s'est battu des années pour être candidat à la présidentielle te bu yàlla defee mu jàll incha allah comme ni ko ministre d'État Habib si waxee moom day désister wu au profit de monsieur Ousmane Sonko loolu daal laa amoon lu may wax di leen gërëm nag waaw ngeen ñaanal ñu yàlla candidature Ousmane Sonko mu jàll incha allah merci beaucoup. Alors,